sa Sénégal te fa ñu koy jaaree la ci gën yomb mooy ci kilifa diine yi loole nag ay kàddu la yoo xam ne Mamadou Diop Decroix moo ko wax ni ki démb Assane Samb xëy di ko jàngat nee na ñi nga xam ne ñooy colon yi loolee bëggoon nañoo salfaañi réew mi jaarale ko ci kilifa diine yi néewal leen doole waaye colon yi ñoom loolee dañuy sella joona est ce que nag ñeneen ñoo xam ne bu ñu jógee bëgg lu mel noonee ndax danañu ci mën a am ndam loole la Assane Samb xëy di laaj ndax na colon yi ñoom bëggoon nañoo salfaañe ba nag kilifa diine yi wala ay tarixa ak wala diine waaye ñoom loolee la joon nañu si léegi nag bu feneen jógee bëgg ko def ndax danañu ci am ndam loole la Assane Samb xëy di laajte yokk si ne kilifa diine yi am nañu solo lool ci réew mi te nag war nañu leen a protéger yéenekaay gi délibération xëy ñu yóbbu jur Jurbel ak Mbàkke nee na ajuma ji nga xam ne moom la ñu génn manifestation yi nga xam ne moo fa amoon amoon na lu toll si juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoo xam ne tegoon nañu leen loxo journal bi nee na sa juróom benn fukk ak juróom-ñeent yooyu nag am na lu toll si ñaar fukk ak benn yoo xam ne jamono ji dugal nañ leen ca kaso ba en attendant fanweer ak juróom-ñeent ñoo ngi xaara tey jii ñoom danañu leen daal di déglu journal bi nee na Serigne Assane Mbacké démb mandat nañ ko dépôt yéene kaay gi de la sax xëy xibaar naan ñi nga xam ne ñooy rappeurs yi démb ak ñenn ci way politique yi ak activistes yi ñoo ngi doon amal manifestation ngir nag ñu bàyyi rappeur bi nga xam ne mooy nit dof ak ñi nga xam ne jàpp nañu leen ci anam boo xam ne jaaduwul wala ñoo xam ne dañu leen a jàpp te mbirum politique tax yéene kaay gi délibération nee na yi nga xam ne moom la ñu doon amal fan yi ñu génn ca diwaanu Mbacké gisoon ngeen ne moo yoroon oto ay xeer ba mu fees della maanaam waa ji nga xam doon sédd la ay xeer moom nag ni ginnaaw bi ñu ko laajee nee na moom daal dafa meroon moo tax mu koy def ndax dafa yoroon oto maanaam policier daal di koy kar ci rond bi daal di koy saaga daal di koy pesa loolee moo tax moom Xaadim Njaay nee na li ko policier bi def moo tax mu mer ba mara détaali jël ab otom dem yab si ay xeer ñëw di ko jox ñi nga xam ne ñoo doon manifester yéen a kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu tay la tey diggante Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ca tribunalum ni la ñu nekkee yéen kaay gi délibération Ousmane Sonko njiitul Pastef moom nag jamono ji ma ngi woote li nga xam ne ab mobilisation ci tribunalum Dakar nee na nag procès public la na ñëpp ñëw nag sa tribunal ba seetaan ci li nga xam ne mooy procès bi kenn ku nekk am na ci droit yéen kaay gi de Le Quotidien yor yor Ousmane Sonko nee na Macky Sall jeexal na te nag li nga xam ne moo ci des mooy mu organiser li nga xam ne mooy élection yo xam ne du ci bokk ba pare nag daal di dem Macky Sall na leer na ñun ñoo ko ëpp doole ci réew ndax bu ñu génne ñëpp ñuy topp te Macky Sall kenn ko topp xanaa mu génne justement Ousmane Sonko wax nag ñi nga xam ne ñooy takk der yi nee na leen Macky Sall jëru ko Macky Sall jëru ko Macky Sall jëru ko ngeen di jël nag ay ngàndaay maanaam di dal ci kaw askan bi loolee mooy kàddu Ousmane Sonko ni ki démb waaye nag moom jiitul Pastef nee na Macky Sall bu bëggee li nga xam ne mooy confrontation dina ko am Macky Sall bu bëggee jàppante dina ko am ba doyal ci sëkk Macky Sall nag du mooy ki nga xam ne mooy tànn kan moo koy wuutu ci bopp réewum Sénégal te nag ñoom nag jamono jii seeni pexe dafa jeex ndax nag yàgg nañ maa jabulise yàgg nañoo yàq sama der waaye gis nañ ne tey ji la waayo gën a aye <laughs> waaye nag li leen dese mooy lu jëm ci wàllum yoon wàllum justice Ousmane Sonko nee na bëri na ay magistrat yoo xam ne magistrat yu juba juba jub ña waaye nag bëri na ci ay magistrat yoo xam ne dañoo dëng ba mara détail yi te nag ñoo leer na leen ne bis dina ñëw danañu rendre compte Ousmane Sonko nee naa Maham jallo mooy doyen des juges Ousmane Sonko nee na Maham Diallo lâche la nee na Maham Diallo est un lâche ni ki démb la ko xamle ndax nag nee na Maham Diallo moo ko wax ne Ousmane Sonko daal nit la koo xam ne daf la buy wër di rey nit Ousmane Sonko nag nee na loolee Maham Diallo bu ko waxoon ci kanamam musiba ma bu ko dina am te dooda ko dooleete vingt-neuf milliards yu Prodac yi Ousmane Sonko nee na askanu Sénégal ñëw leen seetaan si nag li nga xam ne mooy procès bi maanaam atte bi te nag Mame Mbaye Niang moom wax na ne rapport am na Amadou Ba moom tim wax na ne rapport am na li nga xam ne moo am ba des mooy Sénégal kay moo doy war rek ñu wër wax rek ñooy wax ci biir réew mi bu dee nag caaxaan yeeg tappale yi nga xam ne moom la bëgg a Dieng yéen kaay gi du l'Observateur xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko jamono nag niñ koy surveiller yéeme na lool yéen kaay gi la Tribune xëy di ñu xibaar naan ñu tey ji ca tribunalum Dakar ñi nga xam ne ñoo nga xam ne ñoo ànd ak Ousmane Sonko boo moytuwulee jàppante mën naa am de soo moytuwulee jàppante mën naa am de yéen gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nag ma ngi woon waaye nag wax na lu leer maire yi nga xam ne ñoo bokk nag ci Yewwi Askan Wi nee na leen askan wi nag confiance bi nga xam ne moom la ñu am ba jël leen def leen maire contraire confiance boobee bu ko yàq li nga xam ne tamit mooy alalu askan wi na ci maandu bu def benn détournement waaye tamit li nga xamante ni mooy suufu askan wi tamit foncier bi na ci maandu yéen kaay gi la te mooy xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko ni ki démb ba mu demee ca géej waaye maanaam askan wu bare bare ñoo topp ko waaye Lat Diop kenn gisu fa Lat Diop Lat gisu ko fa mën la takk waaye nag mbooloo topp Ousmane Diop génnoon day xaru de yéen kaay gi du l'observateur nee na tension politique bi amoon na 2011 waaye nag tension politique bi nga xam ne jamono ji moo am ci 2023 bi mën na la tey moo gën a jax ndax opposition bu radical la ñu ama yéen kaay gi du Source A nee na kenn dooy génn na àdduna waaye nag yóbbaale na aw naqar li ko waral mooy dafa feebaroon ba maara de Italie te gis nga kenn dooy mii bëri na ay médailles yoo xam ne andil na ko Sénégal nekk na champion d'Afrique ay yooni yooni yoona réewum Sénégal amel koy prime amel koy prime war ko koy jox mbala maanaam wa bañ ko koo jox mën na la gis ngeen kenn dooy dem na ministère bi ñu dénk wàllum tàggat yarama ba mu demee dañu koo la gis nga dañu koo toroxal ba mel nit ku tekkiwul dara laa la waxante nii te dafa ñëwoon pour ñu jox ko ay prix mama jamono ji nag wuy ji yàlla sunu borom ministère bi ñu dénk wàllum sport maanaam di def nag médecin après la mort dem ca ñoom kenn dooy génn fa un million jox leen ba pare nag naan waaw état bi xaalis bi mu ko ameel waaw dina ko ko jox nangam nangam yéen kay gi sunu lamb xëy ñu xibaar naan ñu Balla